dañoo à peu près rek waaye amuñ ci certitude amuñ ci benn wóorute ñaareel bi itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na Seydina Omar amee benn page bu bokk ci tawreet mu di ko liir yonent bi sallallahu alayhi wasallam mer ba mer mi feeñ ci mu ne ko giñ naa ci suñu borom ne Muusa bu doon dund du def lu dul topp ma moo di kon l'islam dafa dikk ñori lépp lu doon weneen yoon sànni fële tëral yoonu boppam ñi nga xam nag ñi ngi koy def ah bu fekkee ne dañuy bëggal seen njaboot ñu bañ ko boole ci diine ndax bokkul ci diine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 الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق